point de presse bi on l'a décidé hier suite à euh, benn constat boo xam ne ni que ni ñun ñëpp que musée civilisation c'est un lieu qui est géré par l'État du Sénégal et il des activités yoo xam ne ni que ni dañ ko fay tenir muy ay activités yoo xam ne ni que ni ay spectacle la démb ñun bizarrement fan yi yëpp ñoo nekkoon en négociation avec l'État bi ñu mujjee dem Daniel wax na ko tout on a on nous a di que ni déjà euh, seen euh, nu mu tudd maladie bi dafa yokk ñu comprendre ko xaar leen tuuti ñu xool évolution yi bu wàccee ñu ubbi ok on a été très sage ñu dégg pour rek être parce que on est des patriotes. Euh, le, le sitting également on nous a dit que ne délai bi ngeen ko dégg euh, kii vous n'avez pas respecté les délais. on nous a dit également que ne mënu leen tenir sitting bi parce que dafa am interdiction pour les rassemblements bon on a dit interdiction pour les rassemblements ça c'est autre chose. Mais pour, pour, pour délai bi, comme on est des légalistes, on va redéposer une demande d'autorisation et repousser le, le, le, sitting qui est renvoyé au mercredi euh, 23 décembre. Et d'ailleurs, j'en profite pour euh, faire un appel à toute la communauté artistique de rejoindre l'ACAM avec Aliem le 23 euh, décembre à, à 15h à la place de la Nation, ex-place de l'Obélisque. Mais dès nous, ce qu'on a constaté, c'est-à-dire on s'est rendu compte que nous, nous, nous tekki wuñu dara ci réew mi quoi ñun ñun ñun ñun loolu la ñu rendre compte démb dañu rendre compte que ni ñun tekki wuñu dara ci réew mi parce que comme comme comme affaire bi dafa xamante ni dafa nekk affaire ku am ndey ak ku amul ndey on ne peut pas comprendre dans un dans dans un pays comme ça on a, on est en de de de de parler de négocier avec l'État pour ñu am benn benn dison benn benn issue heureuse par rapport ak liggéey nit yi mën a def seen liggéey que bu ñu gis benn spectacle qui se qui se tenait au musée de la des civilisations mais avec les gens yoo xam ne ni que ne respecté wuñu d' abord mesure barrière yi sol ñu ci bari soluñu masque ñu ñu si bari respecté wuñu distanciation physique bi et y avait un orchestre si joué comme sama grand nu mu ko waxee c' est à dire ma comprendre que euh, orchestre nekk fa di jouer nit yi nekk fi respecté wuñu distance yi euh, di lekk di naan di ko ba pare en plus di ko publier sur Facebook et que nous on nous yéen dem leen ngeen toog seen kër mais il a raison quand il dit que ne xanaa virus bi bu dafay buy buy bu bu bëccëg jotee ba ba ba ba minuit dafay dafay dafay dafay euh, sieste bu nu ubbee boîte yi rek wala bu nu ubbee fi de diffusion yi mu yeewu mais effectivement man bi ma fi nekkee ba léegi ba fi corona bi muy existé man mosuma fi dégg ne kenn dafi am benn musicien dafi am wala benn acteur culturel dafa am euh, euh, euh, kii te mosuma dégg fenn nekk ne même les lieux de diffusion moment yi nga xam ne nekk ne moom la ñu autorisé woon pour ñu ubbi restaurant yi bar yi ak hôtel j'ai on n'a pas eu vent de nit dafa jëlee corona ci lieu de diffusion yooyu donc aujourd'hui au niveau de la CAM ñun le mot d'ordre mooy lan mot d'ordre bi moom mooy que ne sunu sitting da koy def le mercredi 23 à, à, à, à la place de l'obélisque parce que à 15 heures parce qu'on sait que ne on va pas nous donner l'autorisation mais on va le faire beneen affaire bi moom mooy moom mooy que ni on a on demande à la communauté artistique d'aller travailler dem liggéey rek nanu dem liggéey parce que ñun amatuñu ci mbir mi lan lenn parce que parce que on est fatigué on est fatigué aujourd'hui xamuñu sax lu ñuy wax tout le monde a dit la même chose fii on est fatigué on va travailler on va investir les bars, les restaurants et les, et les, et les, et les, et les hôtels des, des, des, des, acteurs, des, les acteurs qui ont envie de tout, on va faire là. On va travailler parce que mënatuñu dundoo suñu njaboot yi comme ni ma ko waxee barki démb ci bi ñu dajantee kii ñun dañu am gàcce di xool suñu ay njaboot parce que suñu njaboot yi ñuy xool di xool seeni baay di xool seen i ndey suñu waajur yi diñu xool suñu nag yi diñu xool suñu rakk yi diñu xool parce que tout simplement ils nous regardent benn benn benn benn bët boo xam ne ni que ni mënatuñu mënatuñu leen dara mënatuñu leen subvenir à seen besoin te loolu ñun mënuñu ko dund parce que ñun on vit dans dans un pays où loolu dafa am solo ci ñun dañu dund ci dëkk boo xam ne ni que ni euh, nit dafa dañu dañu am sutura mais nga jore sa njaboot nga yeewu suba teel munoo nga am sa liggéey doon ko dundal jékki-jékki pendant 10 mois amoo loo ko jox mais loolu gàcce la ci ci ci ci ci père de famille métti na ci père de famille métti na ci mère de famille on n'en peut plus on n'en peut plus on n'en peut plus on fa on fait pas de bras de fer on respecte tout le monde l'état sunu état la comme ni ñu ko waxee woon la dernière fois ñooy sunu ndey ñooy sunu baay président la république moom moom mooy moom moo moom moo moom moo bëgg artistes donc comme euh, sama grand nu mu ko waxee tout à na ñu indi solution bi on va travailler on demande aux restaurateurs on demande aux hôteliers on demande également à tous les gens qui qui disposent de lieux de spectacle boo xam ne ne que ne ça prend moins de 500 personnes pour le moment comme nous l'avons dit, nous autoriser arrêter la dernière fois, de, de, venir, de nous aider à soutenir ce combat-là et d'ouvrir. Bon, ou bien nous jouer. Pour nous dire, il faut que nous nous donnions le Sénégal.